waaw comme léegi rek ba may jël parole li mu wax ministre bi parce que nee naa ko même bu dul mbiru xale yi bu ñuy war a ba ñuy war a ba ñuy am le mois de mars ba pandémie commencé dañ noon xiif bu mag dana am ci réew mi xiif boobu nag yàlla def na tey bay na loo xam ne war nañ ci mën a dunde ba xiif boobu du am loolu déjà sant yàlla la beneen bi ci topp dama ko ne mbay mi mën na régler immigration clandestine bi nan la koy régler mooy xale yi ñu jox leen former leen jox leen suuf ñu bay ne leen jox suuf ñu bay parce que xam ngeen ne léegi mbay industrie la mbay warul yem rek ci bay dunde léegi mbay bay jaay am na bay dunde am na bay aussi eh, jëriñ ñeneen am na donc ci wàllu ceeb bi gis ngeen na tey ceeb bi alhamdulilah rabil ne mooy li mu wax léegi rek ceeb bi en Chine lañ koy jëndee wala ñu jënd ko Inde te ceeb la boo xamante ne nii ceeb bu bon la laa ko mën a tuddee parce que ceeb boo xam ne na ñëpp d'accord nañ day joxe jarat ñëpp d'accord nañ ne ceeb bi eh, doo indi wér-gu-yaram ci ci réew wi donc ceeb bi nga xam ne ñu ngi koy bay fii nañ ci jëm a góorgóorlu xale yi nga xam ne ñooy suñuy doom suñuy rak yi nga xam ne ñu ngi di mbëkk dem ñu utal leen suuf su doy utal leen ndox utal leen financement formé leen ba nga xamante ne loolu ñu bëgg ci auto autosuffisance engrais yi di ñu am ko ci ñu ko mën a amee ci mboq mi gis ngeen ren li ñu am ci gerte bari na macha allah mais aussi ñu doole ci aussi dooleel Sonacos bi nga xam ne société nationale la bi nga xam ne tey lu néew na doole néew doole bi boo ko waxee mooy lu ñuy muy produire ci wàllu. dawlin tey waroon 10 euh, pour cent sa xam naa matu ko yan yëpp dañ koy jëndi fële di indi bu ñu ko doole woon ba am huile d'arachide boo xam ne pire la nga xam ne nit ñi dana ko mën a euh, dunde am naa yaakaar ne loolu dana mën a am solo ci réew mi li ma mooy li ma wax sànq dama ne boo jëlee matériel bi jox ko ñoo xam ne dañu am doole ku mën a subventionné 14 million tey nga jox ko benn tracteur tracteur bi mu ñëw di ko luyee ay heure di ko luyee ay bés di ko luyee nga xam ne ñooy béykat yi loolu defe naa ne dama ne jëriñul béykat yi lii jëriñ baykat yi moo ñu def benn GIE nga jël ay tracteur jox leen ko ñu cotiser subventionné ko ku bëgg a labourer nga joxe instant ñu labourer la ku bëgg aussi ñu toppatoo sa tool nga joxe instant toppatoo la ko loolu laa ministre bi ne loolu mënoo nekk moo gën ñu koy jox ñi nga xam ne borom doole lañu ñooñu di ko luyee waat ñi nga xam ne dañoo néew doole moo tax toujours ñu naan euh, euh, Euh, cere bu làmb ñu baadoo koy siim loolu laa ba loolu laa bañ ñu def. waaw xam nga ku yokkul wàññi te am naa yaakaar ne état nu mu war a demee ay escalier la ministre bi wax na ko démb nee na fast track la maanaam tey daagu ñun waruñu te yokkute di nga xam ne réew maa ngi yokk mooy ci budget bi nga koy xamee ñun yor commune sax danañ toog mu yàgg ñu ne suñu commune recette yokku na nangam yokku na loolu mooy doxal am réew réew dafa war a dox ci recette yi dafa war a yokku te bu recette yokkoo yokk cere yokku ñeex lay doon moo tax tey jii gis nañu ne agriculture bi li ñu ci def ci wàllu xaalis yokk ci xaalis aussi mu am une hausse ba